mu nekk loo xam ne dafa mel ne ñëpp ko seetloonoo muy niveau élèves yi wàcc ci njàng mi jafe-jafe yi ci jàngalekat yi la wala sax ci élèves yi. xëy na méthode yi tamit yi ñu doon jànge dafa bokkul méthode mag ñi li ñu doon jànge ak ñun méthode bi ñuy jànge am na différence loolu ti mën na jouer ci niveau élèves yi loolu également mën na jouer aussi ci formation ñi former élèves yi yooyu yëpp day nekk ay ay facteurs yoo xam ne da leen ci euh, formation élève bi. waaw non c'est jàngalekat yi moom fa ñu nekkoon ba léegi ñi ngi fa jàngalekat yi ñu ngi leen di former ñu ngi def lu ñu mën mais xam nga jàngalekat mënta def lépp c'est-à-dire que jàngalekat dafa mel ne benn genre lumière dafay wane yoon maintenant su wanee yoon nag ki nga xam ne moom la ñu war yoon bi moom moo war a am volonté pour mën a dem seet maintenant seet bi nag dafay laaj mu def ay recherche maintenant à partir de ce moment nag mën nañu wax ne réseaux sociaux yi du moins internet am na foofu benn importance parce que dina mën a permettre élèves yi mu mën a def ay recherche am mën a def une documentation mën a yokk xam-xamam mais su fekkee ne élève bi léegi dafay utiliser internet dans le seul but di ci waxtaan wala di seetaan ay ay site pornographique kooku mënoo ko imputer jàngalekat yi jàngalekat yi fi ñu nekkoon ba léegi ñu ngi fa. jàngalekat bi moom di wax ne élèves yi ñoo nanguwut a liir sëriñ bi moom di wax ne whatsapp yi ñuy jëfandikoo sax mën naa yàq seenum njàng. c'est un constat général constat la boo xam ne ñëpp ko defando niveau élèves yi moom ñëpp xam nañ ne dafa wàññeeku maintenant li tax mu wàññeeku nag xam nañ ko parce que élèves yi du ñu liir maintenant ils ne lisent plus c'est ça le problème maintenant lan moo waral nag élèves yi du ñu liir c'est parce que léegi il y a un boo xam ne moo fi nekk ce qu'on appelle internet constitué de différents réseaux ñu wax ne les réseaux les réseaux sociaux mais usage bi moom moo posé problème bon waxuñu ne internet baaxul ou bien réseaux sociaux yi baaxuñu mais problème bi mooy usage bi comment les élèves utilisent ces réseaux là loolu moo nekk problème bi est-ce que dañ koy utiliser à bon escient pour mu jariñ leen wala est-ce que dañ koy utiliser de de d'une manière tellement mauvaise boo xam ne du leen mën a jariñ loolu nag moo tax niveau élèves yi wàcc. boo seetloo njàng mu njëkk ma ñi ko doon def dañoo gënoon a bëgg li ñuy def. xale yi léegi nag maanaam foo mi def leen ëpp doole waaw muy télévision yi muy film yi ak leneen ak leneen dafa tax ba ñoom seen doo xaw a gàllantoon seen njàng. ñeen ci élèves yi di wax ne jàngalekat yi ñu ngi jàngale waaye élèves yi nangu ñoo jàng. waaw pour njàng mi ni mu soxee moom lu si bari man dama jàpp ko ni euh, du ci professeurs yi parce que professeurs yi ñu ngi def le tout di jàngale di expliquer muy leer. kon lu ci bari tamit ci ñu suñu niveau ñun élèves yi ñun lu si bari ñun ñoo ko ñun ñoo ko waral. njëkk parce que au moins euh, daanaka moom jàng léegi bi sax moom moo gën a yomb parce que réseaux sociaux yaa ngi fii euh, mën nga ko euh, télécharger ay Play Store tu vois ay dictionnaire français anglais maanaam jàng bi léegi moo gën a yomb mais am na ñoo xam ne aussi bëgguñoo jàng. soxna si moom di na ñaax nguur gi ñu jàppale jàngalekat yi ndax grève yi ñuy grève mën naa yàq seenum jàng ak lu ci man de xew jàngalekat yi di gën a ñu élèves yi ngir ñu gën.